le régime de Macky Sall c'est un régime répression. régime mu Macky Sall régime mu fitna la ñaata nit lañ fi rey ñaata nit lañ fi jàpp itam ci régime mu Macky Sall képp ku bokkut ak moom gis-gis rek mu jàpp tëj. Macky Sall xooxatal waxtaan nañ nag ak suñuy partenaires internationaux ñoom itam jot na ñu wax fan la ñu féetee ak ci jamono bu tëradi bi nga xam ne terrorisme mu ngi ci frontière Sénégal gis nañ li xew ci Mali ak itam ci sous-région bi Sénégal nag dëkku jàmm la. du ñu nangu Macky Sall ci bëgg-bëggam def li nga xam ne moo di troisième mandat indi fitna ci réew mi. nous impose la kawo dans sa pay